génn ak àddina Idriss Déby dina bett bett na Tchadiens yi bett na aussi Afrique yëpp ak monde bi parce que dafa génn sur le terrain xëy na pour la deuxième fois d'après sumay information bu njëkk bi daaw réussir woon na euh, dàq rebelle yi nga xamante ne dañoo attaqué woon benn camp militaire Tchadien ray fa ñu bari ay soldats mu génn moom Déby ñu ànd xeex ba dàq rebelle yi jàpp ci ñu bëri nag ñu nommé ko sax maréchal bi mu ñu bisee euh, bi yoon mu génnaat parce que FAC yi le le front l'alternance la concorde au ville di commencé yëngatu def seen i mouvement parce que ñoom ni ñuy def souvent comme désert bi dafa yaatu dañuy def genre colonne bu gudd armée bi euh, ñoom ci seen bopp dañu ragaloon début mais est-ce que bu demee dañu ragal noonu ki nga xamante mooy Mahamat loolu aussi mooy question bi nga xam mooy sur le mu nekkoon le chef de l'opposition euh, dañu woon du bokk ci élection yii mujj yi parce que Idriss Déby euh, moom mooy gagné parce que élection yi kuréel yooyu yëpp ak ñi meroon ñëpp waa ex ñi ñuy exilé woon étudiants yi waa diaspora ñoo ñëpp nag tey dañuy door dañuy daal di ñi taxaw